benen xéewal bi Oustaz Diagne mooy saxal bi yàllay saxal kàddoom ba lañ koy laaj daf koy tontu comme niñ ko ko laaje am ñu ko wéttali am ñu ko dalal ci muy jëf yu baax comme li yàlla wax yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli thabit fi l xayaati dunia wa fi l axira mu ne yàlla da koy defal tawfiix bu ñu ñëwee ne ko dañ laa laaj si kan mooy sa borom nee na da leen di tontu tontu bu gàtt ne rabbi yàlla gis nga ci examen yi élève bi xam liñ ko laaj xam li muy tontu du jël ñaari espace bu bari ci bind te du jël temps bu bari ci tontu sama borom ngeen may laaj loolu dafa jara laaj rabbi yàlla yàllaay sama borom loo xam ci yonent bi mu ne leen huwa rasulullah kooku ndawal yàlla la woon bu mu yónni kooku ñépp xam ne ko ñu ne ko waaw lan mooy sa xam-xam bi nga doon jëfewoo ci sa diine mu ne leen mooy téere yàlla bi gëmoon naa ne waxu yàlla la ma jàng ko ba pare gëm ko yonent bi nee na bi mu yegsee fii nee na lii mooy li yàlla wax ci alquran ne ñi gëmoon yàlla sax ci njub yàlla day saxal seen làmmiñ saxal seen kàddu looloo tax mu ñëw ci sunna yonent bi ne su ngeen suulatee ab néew ba àggal istaghfiru lahu na ngeen ko jéggalul yàlla wasalullaha lahu tasbit te ngeen ñaanal ko yàlla mu saxal kàddoom ba malaaka yi buñ ko laajee mu tontu laaj yeñ ko laaj léegi nag examen ba jeex na waa ji laaj nañ ko tontu na ban xéewal yu ñëwaat yonent bi alayhi salaam nee na day am ab hamgabat bu jib xam nga bat bo batu kan la batu yalla subhanahu wa taala moy jib waji fi mu teud ci bàmmeelam mu diko deg lan lay wax an sadaqa abdi yen malaka yi bay len sama jam li ngeen ko laaj yeb tontu na te degguna ci lu mu tontu xam nga lu des fa afrisoo lahu min al dem leen jëli ay laltaay ci aljanna ngeen daal ko koy lalalkat ci bàmmeelam fii neena na wa albisuuhu min aljanna daa di leen dem jëli ay yére ci aljanna ngeen solal ko ko mu ne waftalahu lahu baabam ilal janna fii mu tëdd ci barzaxam ubbil leen ko fi aw yoon boo xam ne ci aljanna lay teere ji nee na bu loolu amee wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi ñu daldi koy yaatalal bàmmeelam ba day xool ba bëtam yem ci boor bu nekk dund barzaq ngoog nee na këram gi muy am ci barzaq côté bu mu xool day xool ba fu bëtam yem ay bëtam du mën a jeexal kër gi ndax ni muy yaatoo nee foofu wa yatihi rajulun rajulun xasanul waj nee na benn waay lay jékki seen ko muy jóge fële di ñëw xar kanam gi rafet lool mu leer lool nee na fi mu ko jibsi di ñëw ci moom parfum yi nekk ci yére waa ji mu ngi koy fekk fa mu toog ak fa mu seen waa ji muy ñëw nee na muy dox di dox ba yegg si moom fi mu nekk ci bàmmeelam moom kese nee na mu ne ko waaw yow jëmm ju rafet ji nga xam ne man wéetaay dong laa naroon di jooy fii yow la kan nee na jëmm ji tontu ko ne ko ana amaluka saalix man maay sa jëf yu baax yi nga doon def ci àdduna man la yàlla jëmmal jëmm ju rafet ji ma ñëw pour wéttali ci sa bàmmeel doo wét mukk